reporter sans frontière di kuréel gi yittewoo wàllum liggéey taskati xibaar ci àdduna bi Sénégal nag def na ci jéego am ñaari place yoo xamante gagné na mu jóge nag ci ñeent fukk ak juróom-ñeenteel place bi dem ci ñeent fukk ak juróom-ñaareel place bi sunum réew nek ci juróom-ñaareel place bi ci dënd Afrique di loo xamante ne ki xamante ne moo jitte banqaasu reporter sans frontière ci Afrique sow jant mi ngi koy rafetlu Moma Sane Diagne ne donte jéego am na waaye nag liggéey bi des ñu teewlu ko Moma Sane Diagne ci jokkoom Mati jeng Senegal Sénégal gañe na ñaari toog ci ci ci xayma boobu donc euh, loolu daf koy permettre na ko yit mu jóge ci fi réew yi nga xam ni dañ leen a considéré woon comme xam tas moom sa bopp am na fa tuuti jafe-jafe léegi ak score bi nga xam ni moom la am ren mu dugg ci groupe réew yi nga xam ni jàpp nañ ni moom sa bopp ci wàllu tas xabaar euh, nekkandi na li ko waral nag ren gis nañ ni ci wàllu independance critère parce que juróom-ñaari critère ci la ñuy natt gis nañ ni am na ci benn boo xam ni daal Sénégal xaw na ci néew ci ni ko évaluateurs yi xayma muy wàllu indépendance waaye ci yeneen critères yi ci juróom-ñaar ci la def ay progrès ñetti poñ yi nga xam ni ñoo ko permettre améliorer score ba mën a dugg ci groupe yooyu bien que corps yi c'est à relativiser parce que bu amul ay progrès fii ak déwén euh, ci classement wu bi buñ deful ay progrès yu dëgër lu faible la donc mën nañ wàccaat nekkaat ci catégorie bi nga xam ni ci lañ nekkoon ci ci ci deux mille dix neuf yi nga xam ni rek mën nañ ko wax ko autorité yi wax ko ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi yëngu ci secteur pour que Sénégal mën a defaat ay jéego yu gën a am solo ci classement bii di ñëw ak année yi ci toppaat. mu nekkoon Assane Diagne